waaw gis ngeen ni madame sek moo leen defal espace massage yéen jigéen ñi mën ngeen a defal espace massage ci seen biir kër ci seen i biir néeg ba nga xam te ne ni seen borom kër duñu soxla génn dem fenn waaw mu ngi ni numéro madame sek moom ngeen di gis noonu ci kaw ngeen ko soxlaa rek mu ngi nii ba nga xam ne macha allah waaw mm-hmm. waaw mu ngi nii soit mooy tànn sa bu la neex mu ngi ya? nii lan lii lii lii appareil de massage ak lii ok kon bu ci nekk ak rôle bu muy joué ok ok ak kële tamit bu ki lee mel ne robot moom tamit ah li vibreur massage moo tax mu ngi vibré mu ngi nii yéen ñu soxla espace massage ba nga xam ne seeni borom kër du ñu soxla dem fenn ñu leen di dàmp bàyyi action di fa am mu ngi nii jigéen ñi defar leen ko mu ngi nii.